Euh, gis nga ñoom daal di nañu chanter li nga xam ni moom moo di. Euh, gendarme yi dugg nañu gendarme yi dugg nañu. gendarme yi dugg nañu donc euh, gendarme yi. l'arrivée des gendarmes dugg nañ ci assemblée li la ñu gisoon ci installation 14e législature bi. ñëw nañu ñëw nañu pour daal di. donc gendarme yi euh, dugg nañ jàpp nañ euh, honorable Ayib Daffé Ayib Daffé yëkkati na loxo yi. loxo euh, yi voilà ñu doon loxo di ñu ngi buux Ayib Daffé si beneen côté bi. ñu ngi ñu ngi buux Ayib Daffé. Birame Souleye génn na si si biti donc honorable Ismaïla Diallo tamit génn na. voilà donc ñu ngi noonu euh, jàpp kii di euh, euh, Sanu Dione donc mais honorable Ramatoulaye Bodian téye na ko donc fi mu ne nii gendarme yi dégagé nañ bu baax a baax ñi nga xam te rek ñoom ñëw di député yi député Sanu moom nee na bu kenn laal mais lu ñu gis mooy fii si assemblée nationale bi waxtu bi bi 22 heures 22 minutes jotee. Euh, les éléments de la gendarmerie ñëw nañ donc élément gendarme yi euh, seen lim nag takku na lool mbisaan parce que euh, bi ñu wàccee lu ñu lu ñu bëggoon am nañ ko réussir nañ daal di dégager député yi Euh, député yi nga xamante ni euh, ñoom ñoo nekk fii euh, si yeewi askan wi rawatina nag góor ñi daanaka ñoom ñëpp génnee nañ leen si biir assemblée bi donc ngeen gis noonu lim bu takkoo takkoo takkoo takku lim bi nga xamante ni on peut dire que lii la ñu gisoon mbisaan si jamono ji nga xamante ni ñu ngi doon installé quatorzième législature tout si sa jàngat bi yaa ngi koy wax nga ne ndax duñ duñ àgg si benn situation boo xamante ni li amoon fii si installation quatorzième législature bi loolee la ñu gisaat tey gendarme yi génnee nañ ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo nekk député yu yeewi askan wi euh, ñoom ñëpp génn nañ donc fi mu nii euh, député yu jigéen ñi rek ñoom ñoo des ñoom ñoo nekk noonu di am ay kàddu njëkkat yi donc léegi nag lan lañ fas yéene def ndax dañoo war a procéder vote bi nga xamante ne moom mooy vote loi bi mbisaan ma bàyyi la nga joxe see si li nga mooy sa lecture. day. day day wéyal dañ dañ parce que aussi lu ñu mën a souligner. mooy ñoom itamit les opposants ñu ngi ko doon wut parce que c' est quasi symbolique parce que tamit euh, des forces de l'ordre qui brutalisent aussi des députés di leen génne des représentants du peuple par la force des baïonnettes pour euh, pour euh, paraphraser quelqu'un dans un autre pays. en tout ci beneen. ci ci ci beneen histoire aussi donc ay image la yi nga xam ne ni image yu forte la te ça fera forcément le tour du monde donc ñoom itamit bokk na ci lu ñu doon ci lu ñu doon parce que c'est des images assez assez assez frappantes des députés des représentants du peuple qui dëkkite dëkkite Cheikh Abdou Bara am na lu muy wax ak président Amadou Mame Diop. Euh, député benn bokk yaakaar yi nee na nañu nañu génne Cheikh Abdou Bara Dolly euh, mais quand même euh, Farba tamit am na lu muy wax mais Cheikh Abdou Bara Dolly. wax na wax na bare wax na waaw wax na wax na bare tax moom Cheikh Abdou Bara Dolly mais génn na donc ce qui kon fi mu nii député ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk. yu euh, euh, député yu euh, benn bokk yaakaar ak wàllu voilà les gendarmes mu mel ni que ñu ngi noonu waaw parce que parce que parce que ñoom lañu la ñu bëggoon mooy ñu mën a ñu mën a disperser te dégager xoolal côté voilà beneen côté bi tamit ngi noonu yi ne en tout Euh, am lu muy wax euh, xëy na ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di. Euh, léegi liggéey bi dina yomb Amadou Mame Diop pour mu mën a daal di continuer génne nañu député ñi nga xam ne ñoom ñoo tout à fait nga moment incroyable tamit fii ci assemblée nationale ndax bu ñu demee tamit ba gis l'entrée des gendarmes xëy na dina mën a indiwaat beneen polémique donte nag du lu bees loo xamante ni am na fi wax naa ko tout à l'heure ci li xewoon fële sa douane bi ñu installé quatorzième législature tey ji ñu fas daal di euh, amal ab wote loi boo xamante ni bésu tey ji si altine ji euh, juróomi fan euh, si weeru octobre si weeru ngeen jégal ma février si atum 2024 mu nekk anam goo xamante ni donc ñu bàyyi président assemblée nationale mu liggéey waaw naa ko So what is happening? Des suffrages exprimés. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. bi nga xam ne moom moo nekk ñu ngi toll nii rapporteur bi. yaa ngi grave bi. Article 1er, la dérogation à l'alinéa 1er de l'article 31 de la Constitution intermédiaire expliquant pour l'élection du président de la République avec les 45 jours francs au plus et 30 jours francs au moins avant la date d'expiration du mandat du président de la République en 25 ans. Le scrutin pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 est reporté au 25 2024. Nous avons de reçu gouvernement de monsieur Saint-Couteur de vous la parole sur le président. Merci. Merci. Merci. Merci. l'amendement à l'article 1, exposé 100. Le présent amendement a pour objet de modifier la date initiale fixée à l'article 1 pour la tenue de la prochaine élection présidentielle. En effet, comme nous le savons tous, le mois d'août coïncide avec l'hiver. L'élection présidentielle étant restriction nationale d'une importance capitale, tout Sénégalais doit être en mesure d'accomplir son vote en acte hautement citoyen. En raison de l'inaccessibilité de certains partis du territoire à cette période hivernale, il s'avère nécessaire de fixer la date de l'élection présidentielle à une période où tous les Sénégalais seront en mesure d'accomplir le droit de vote. D'autres effets importants, ce sont les célébrations religieuses qui continuent au mois d'août. Il y a le Magal, il y a le Gamou en septembre. Ces moments importants ne peuvent pas être ignorés et doivent être pris en compte. Ainsi, il est important de relever que le décalage de mandat en cours nous ramène au mois d'octobre, qui coïncide avec la rentrée des Ainsi, pour permettre à la justice de prendre en compte l'élection et de mieux se préparer, le de décembre semble idéal. Le mois de novembre semble idéal. Ce délai sera également suffisant pour appliquer les conclusions du début du dialogue politique national qui sera évoqué dans les prochains jours par le président